alaikum warahmatullahi sumagani dilen sed dilen ziar man la hari mari bashir dilen nuyu bu baaxa baaxa baax dilen sed dilen ziar dilen ñaanal yalla ah hope ne video bi na la fekk yeen ñep ci jamm ak salam a ah, mene ko ne am yeen ñep di len wax ne welcome back to my channel tay ma amat tamit anoda recipe fini a ah, recipe bi ni nak fogg na sore ko gisee yeen xam ngeen lan la waaw ilen moko de oyoy fuk fuk ilen mi ne fuk <laughs> ilen anaga mu ne fukk fukk fukk fukk la xam fukk fukk fu ban la ci dee wax daal waaye mu ngóog <coughs> sorry <coughs> axam jàpp na ma <coughs> ilan sa axa jàpp na ma kon tooñ la baaxul dinaa bàyyi di la tooñ recipe bi bii moom ñun foog naa in Gambie ñu ngi ko de ooyee is it liver liba o xaw ma daal anyway foog naa liba sax lañ dee gën a wax beneen bi moo nekk res waaye foog naa beneen bi moo nekk liver so bii moo nekk am am longs yi xam nga am parti ida am nag wala xar waaye anyway de kaw longs wala tamit longs si la waaw longs yi moo nekk nii ñun ñu ko ooyee liba wala liva waaw yéena ma gën a xam rek <laughs> mooy loolu waaw mu ngoog soo mu ngi nii liva bi fo mooy beneen bi mooy res bi waaw waaye fo naa bii nii moom moom waaye waaye bii daan ooyee liba daal anyway so moom laa bëgg a defar tey daal understand ngeen ween mi maa xam ngeen fi maa waxee <laughs> <laughs> so moom laa bëgg a defar tey tooga ko tey soos incha allahu rabbi mën na ma siyaa ko ak yéen waaw su ko defee tamit xam naa am na ñoo xam ne xëj na bëgguñ ko waaye dafa neex waaw soo ko toogee tamit noo ko ku nekk ak dafa nekk nax ko lay toog waaye soo ko toogee tamit ine euh, ride yi dafa neex ba bëgg dee dafa neex nga am sa bread soo peree har rek def si waaw lekka bu neex la so mu ngi ni ñu ko am ni bam ba ma suma onion sec ko dama ko baxal so suma ko baxal dama fa defaale onion ci su ko defee pour mu jema a ci si ci si si ca bu mu ma amar bi tek ko fi ni ma amaat fi ni nak suma ingrédients ci bari wuñ sax comme ka bu xonka lay def ma ngi am fi ni tamit am sorry tomato pure waaye lu em rek lay def ma am fini suma seasoning salt mo mo ma gungé tay waaw ba pare ma am fii tamit bay leaves dinaa si jël som maa ngi am onions mix comme nu ma dee mixé rek all the time white and red ma am fii suma jalapeno am fii suma scotch bonnet am fii tamit suma sweet pepper half am suma potatoes dama bëgg a pompiteer kon ma leen ko de waxee rek. pompiteer man naa bëgg a pompiteer suma jëkkër bëgg a sweet potato moom looy toog ne dafa sweet potato fu mu nekk ñëw na sànq sànq ñëw na ba gis ma mi ne ma ne doo si yokk def si tuuti ne ko déedéet pompiteer mi ne ma dee def si tuuti petit boo boole la waaye it tamit waarawu leen tamit mag bu em nii man suma togga des soo pompiteer mën naa si rax suy petit ah xanaa ma try rek ah waaye fan nga am sa gisee tamit ak ak ak ak ak ak lii boo boo ko war a xam pompiteer ah kii waxal leen ko lu mooy du baax moom de baax na rek. waaw mu ma am fii tamit suma oni suma diw am suma gali, laaj bee so nii So mu ngoog soo nañu ñëw door nag first of all xaar leen ma indi leen nii maa ngi teg nii suma ndox gis ngeen di baxal dañ ko ñëw baxal soo léegi dañoo def xorom little bit of xorom ngoog fu nekk nañu dugal ko si baxal bam baax bismillah donc moom dafa tumba rek si kaw du di di ma dig tamit luy problème am ñu la dugalee da ngaa dugg a dig da ngaa tumbal si kaw rek di di feey ah. su ma ne sa bi dafa ndaw de te ma ceen sigeer lu ko mooy mu tuuru si yëpp waaw Fodane moo mo a ceen sigeer sigeer bi dafa man duur bu ndaw ndax xam nga suma ndox bee bari waaye indi ma ñëw ma si mu ngoog léegi nak ma def fa suma onion ci si kaw. lii nag mooy xam nga am na kuruj karaj kuruj karaj bi moo nekk kan, nii ya. kuruj karaj hey lii dafa neex de hey. Kan bi dafa neex ba buga dé dee soo ko jëfandikoo ba pare ba saraay ba ba ci kuru karaj bi hey hmm ma noppi foofu no bara ñu maa jàpp caali problème lay bay. <laughs> wa suma gay yi fu nekk gis ngeen na baxal na ko ba pare mu ngi ni mu soko baxalé ni la mel gis ngeen soko baxalé ni la mel way man lima def su baxalé ko baxalee ma li def su baxalé xam nga parce que man dafa mëna four soko baxal daf dé four gis fruit yi am lifin yu dess yi fii so man dama ko dee rahas wa dama ko rahas gis ngeen ne raxas maa ko rahas mu ngi set gi nga dama ko rahas way su fekke tamit bëgguloo ko rahas tam is fine <laughs> way man dal dama ko rahas ba ma ko ñëwee dama ko génnee raxasaat ko layandi ko bam <laughs> li legi dama ko ñëw nak dok legi ñu wàll legi yo ya set jàng sa ngi dok ko bu a dok rek dafa melni tamit rek comme soy def comme soy toga benen beneen bi nu mu tudda beneen bi am bii bii mooy furfur babi bi furfur. Ba fana bi len de oye furfur be. So gis nga so yo ya siya dab so pere yam façon nga dog nga ko wara dog parce que dang ko wara dog ko bëgga fry. So ko bëggé dog dog yu m nga dog ko dog yu m ko na gambé sa dog yu m lañ ko daan rek dog. Wa nga xamné dina neexal lekka. Du reuy torop. ma sédé dama xam ko bëgga dogé. Ma loxo ngi sédé kon dama lañ ko waxé rek. Waaw. <laughs> Ni la. gis ngeen pompiteer bi naka laa ko doggee dama ko def box box box rek laa def dama ko def box mix mix ko tuuti rek ak sweet potato comme que moom daal ne foog ma defal ko fa sweet potato léegi ñu ñëw nag fry suñu pompiteer brownie lên cua gì lagi bisa bismillah ya sini kali dia menggaya perang gis nanya dan beli kebal nama beli gis gis kan menggaya perang mantan cuma am na ka leen ko defee so bëggee onion si mun nga koo blend mun nga koo tracé comme noo ko ida guddaay bi wala nga def ko round wala dafa des rek man naka nga ko bëggee def waaye ma dama préfère pour ma wol ko dama ko wol ba moo ko dama koo xala wal tuuti rek ma génnee ko waaw so maa ngi fi def onions red onions and white always my favorite jalapeno après ma def fa sweet am pepper ak tamit scotch bonnet mooy kaane bu dija léegi dina ma fa def tuuti poivre léegi ma boole ko nag blend ko together léegi gis ngeen lii ngeen wal naa ko ngeen gis ne moo rumbax rumbax dama ko xala saaja rek gis ngeen dama ko xala saaja soo léegi ñu def ko nag bismillah kon ko man bu <coughs> xonq laay def dama def tamit bàyyi xel ne sunu bi bariwut noonu waaw bëgguma gravy gravy bi mu bari trop waaw moo tax ma def ko lu m rek waaye tamit ku fa bëgg a def tamit moo gravy it's fine ma def tomate benn kuddu rek ci spoon bu mag bi moom laa def xam nga yi moom dañ gaaw a mën a forox waaw lii nga xam ne ndéewu yow ko am sa ndéewu suba teel ah ndéewu ngi kenn dañ ko di nasa lii lañ daan uti gambia ndéwo su ñëwee rek dem jëni ndéwo fekk nak ndeysaan ñu ko togal nak bam baax nak ndeysaan daan ko ci doole yoy non xamne xam suñ yaay yeek suñ anti yi ma ne ko daan def lu diñu diñu lifin ñu ko daan togal togal bu sel ndeysaan soo heey rek daw nak dem jëndi da legi ñu ci kawam di def fabrica powder one teaspoon ba pare man su ma dee tooga yi dama ci dee faral la sànni sukkur waaw loolu nag sama secret la su ma dee tooga any sauce bi ma tooga rek pour ma sànni si benn kii kuddu teaspoon mu change flavor bi xam nga sukkur dafa mën a change flavor waaw sukkur boo am white sugar wala wala brown waaye moo am léegi dañoo nekk di def nii def a dox

suma ya. si jëlee sol bi laa fa def def naa ko tamit xorom tuuti waaw xam si jëlee sol bi moom moo ma dee dundee moom wax dëgg na yàlla moom moom moo ma dee wéttali waaw moom si lu nekk rek su passé ci moom mu gungee la ko ci suma

nga yaa ngi ko dog-dog di em yi nga xam ne mu ngi em ak am lifin bi suñ liba bi la xaw ma liba xaw ma fóot fóot man daal maa ngi nii rek ma si wax daal ngeen xam ne <laughs> ngeen jéggal ma <laughs> waa xaw ma kufu kufu xaw ma ileen kufu kufu kufu la xaw ma kuf kuf ileen loo wax baax na ko bëgg tam mun naa def bu weex bu bu tamit boobu tam dina si sax dina neex parce que foog naa am naa am res bi res bi maa ngi ko am suma channel bi soo boobu weex la woon moo ne bii xaaral ma def ko mu nekk xam-xam pour mu different tuuti waaye maa amee res suma channel bi soo mooy long si kaaw long ma kaaw xaw ma ban la si laam xaw ma xayam <laughs> bu si mën a doon rek suma gars yi ko man ko suma gani gis ngeen pare nañ suñ liba ngi liba wala forfor wala <laughs> wa gis ngeen buru bee ngi nii tapi bi jër waaw ko am deo deo weekend mana ko weekend mom dina saf wow wa xëy suba rek toga ko def sa sandwich def sa tea so bëggee tam mun nga at sa salad so bëggee mu gën mu gën healthy wa wa man pompeter bi dama ko am defaat so bëggee tamit mën nga ko fry ta bu ko ci def nga tegee ko bor yépp ya, benn la so mu ngóog man ko ne mu ngóog wow wow wah la leen amalon tay waaw waaw wax leen man duma lek dara di leen bàyyi mhm, ah lu ma lekk rek daanaka duma ko mëna indi ci yeen way dina leen wan waaw su ko defee tamit rek nak ngeen ah sha allah amna la yeen ci jokk rek nga def sax waaw waaw way rek ni soppi wante nak lañ ko dee xalaat rek so lii laa amoon gis ngeen ma togg ko togg bu gaaw xonxa bu xonxa bi mooy um, long si mooy um, liba moom lañ koy wax liba mu wokk nii liba wala liba nu liba mooy beneen bi nag bañ confuse ma boppa daal anyway waaye yéen xam <laughs> ngeen mu ngoog so mu ngi nii di leen wax ne bu leen fàttee subscribe all always ñu subscribe a good ngeen subscribe ba pare ngeen share ko ah comment as well Irene what? thank you. Thank you, thank you. Mandou. ma séddoo ak suma semua rek suma dëkkandoor bi moy jay anda yu rafet yi mina ne ma anda ko ak suma gay yi gis ngeen ànda la nii nih nggak rafet rafet rafet la gis ngeen nga tek sa ciuray rek def ni nga am tamit style bi tamit dafa rafet style bi tam dafa rafet na def sa ciuray rek def sa bind rek def am benen style bi mun nga fete kandul wala mun nga fete def tamit sa am li bi nak man moma maa bi dafa melni ni teacup xool leen comme teacup ta andala ni waaw gis ngeen dafa melni comme teacup ta andala waaw waaw ta dafa yomb nak ba suma ah yomb na silwi si na wéri koor gi ni rek sax nga tek ni rek muy gilli gilé bor ah hol len ma bi ni tamit ara ma try bi leen naka kala rafetee service na service na moom wax deg neex yalla rafet na torop soo me dama seddu ko yeen ah mu nga ku si dugg rek kontaagam mari Bachir rek mu jox la si bax bax yi wa jox la si kontaagam su ko defé nak ngeen am ci rafet yi xànkee